ausu billahi min iblisa seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki julli di mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ xaafiya buso ñoo ngi lay nuyu ci turu sëriñ Bachiru mbakke moom sëriñ xaadim xawa ba ak mbooleem daayira bi nga xam ne ñoo bootu ci daayira muxadamatul xidma di taarab di taaral lëggéeyub sëriñ Tuubaa fii ci barab bu sell bii ñu di leen nuyu ci turu Serigne Bassirou Mbacke moom sëriñ Khadim Awa lañ fi ñëwee ànd feek euh, Serigne Abdoul Khadir Mbacke mii nga xam ne kenn la ci njabootuk Serigne Touba gi waaye di xaritam di léppam ànd fii tam ak Cheikh Mouhamad Lamine mi nga xam ne mooy loxol ndey jooram ñëw fii ci turam waaye ñëw fii tamit ci turu Serigne Abdoulahi Dia mi nga xam ne ku ne xam na ko ci réew mi. di leen ñaanal ci liggéey bii nga xam ne moom ngeen di liggéeyal Serigne Touba te mu waroon murid yépp nekk gi ngeen fi nekk te nekkal fi mbooleem murid yëpp nekkal fi mbooleem ummatul islam yëpp saa defal leen tawféex defal leen kàttan ba li ngeen ci yéene lépp saa may leen ci tawféex te mu ànd te tamit loolu yëpp nekk ci kilifteeku Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu di ko ñaanal saa borom guddal aw fanam te dolli ak wéram. Serigne Bassirou mbakk yebal nu fi nag nu ñëw fi indi fi addiye joo xam ne ki ko joxe xeeb na ko lool ndax ku ne xam na ne liggéeyub Serigne Touba bi moom ku ne war na cee def loxoom ku am sa kàttan war ko cee def ku am sa man-man war ko cee def mu ne Serigne Abdoulahi Dia ngir mu indi barkeeloo ko ci liggéey bii xeeb na ko lool nag xeeb na ko lool ndax xam na ne lépp lu ñu fiy def lu ne bokk na ci ñi nga xamante ne si ay war-waram ci moom la ëppee waaye nag mu barkeeloo ko ci loolu sëñ bas nag nee na moo ko bëggoon a indil boppam waaye dafa jàpp mu wax ne rek naa ànd ak sëñ Abdul Xaadir ñu ñëw indi ko teg ko ci sa loxo moom fas na yéene daal na mu ko daan defee bu ñu demee ba toll ca waxtu wa mu defee ko na mu ko daan defee waaye daal ngeen ñaanal ko te ñaanal sëriñ Abdoulaye Dia mi nga xamante ne si ci moom moo ko joxe tam jaar ci loxoy sëñ Bass ñun ñu indi ko fii rek nekk ay ndawam. nee na ngeen ñaanal sëñ Abdoulaye Dia yàlla saa borom guddal aw fanam te dolli ko wér te yokk kàttanam yokk man-manam ndax bokk na ci ñi nga xamante ni si itamit sagub lislaam lañ ndax ku ne xam na ne alal moom dafa sax ci xol waaye koo xam ne jamono bu ci nekk ñi ngi lay gis li ngay def ci alquran muy xeeti kii yi nga xam ne mu ngi koy def ci alquran te itamit mu nekk ab soññee ci ndaw ñi waaye nekk ab soññee ci ñi nga xam ne ay sëriñu daara lañ ndax loola dana tax nga gën a jàjjuwaat gën a farlu ci say ndaw ba tax na loolu noonu kenn ku ci nekk bëgg cee bokk loola rek bu ci yemoon mu doy waaye bu yemoon ci li muy def ci réew mi ci wàllu ci ci li muy jëflanteeg waa réew mi ci rawatina nag ñooñ diine mu doy waaye nag rawatina nag ëttub kër Serigne Touba bi waaye xam na ne fa ñu jëm mu yemal xiyaamat akbar lu baax du fa doy mm-hmm. rawatina nag foo xam ne da koo def ci ëttub Serigne Touba te jaarale ko ci yéen kon loola moom jëf la joo xamante ne si jëf la ju mat a rafet njort jëf la ju mat a yaakaar jëf ju baax ju ne mat yaakaar nag waaye rawatina jooju nee na nag di leen ñaanalaat ndax xam ne fii ngeen taxaw mu di yëpp ngeen fi taxawal fii ngeen nekk mu di Serigne Touba yëpp ngeen fi nekkal kon warees na leen a ñaanal ndax ngeen am wér ak man ak tal loola bokk na ci liy gën a ñongal liggéeyub Serigne Touba bi ndax ku ne xam ne ne barab bii ngeen nekk de kenn du fi dox wala mu dégg ne jënn jëf joo xamante ni sii juy nuru jëf ju dul noonu la wala lenn loo xam luy nuru naka su dul noonu la ci xorom bi ak li ko wër kenn du ko fi dégg rawatina nag di ko fi gis loolu nag sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax te di la ci ñaane yow tali da ci sant yow mi nga xamante ne si yaa nekk ca bopp ba waaye sëriñ Abdoulaye ñoom ñi yëpp it sëñ nee na mi ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm ndax seen diggante démb ak tey rafetoon na ndax gis na ni ngeen ko jàppee ak ñaan yi ngeen di def ci moom yëpp mi ngi koy yëg mi ngi koy gis mi ngi leen di bàyyi ak sëriñ Touba mi nga xamante ni moo am fay mu fay leen boppam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk yu baax yi tedd yi sëriñ Abdul Xaadir sëriñ sëriñ Abdul Karim ak Cheikh Mouhamadul Amin ñoo ngi leen di nuyu bu baax ci turu sëriñ ak euh, waaw mooy sëriñ Abdul Xaadir sëriñ <laughs> Abdul euh, ak sëriñ Abdul Karim ak Cheikh Mouhamadul Amin ñoo ngi leen di nuyu nuyu ba gën a tedd muy nuyu bu islaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ci turu Serigne bu Bousso bi nga xam ne mooy njiitul daairatu muxaddamatul xidma ak mbooleem waa daairatu muxaddamatul xidma di nuyu Cheikh Mouhamadul Basir moom Serigne Xaadim Awa Ba te di ko ziyaara bu baax ci weer wu tedd wi nga xam ne moom la ñu dugg di feddali itam sunu kóllëre ak moom di rafetlu itam ay taxawaayam ci barab bii ni nga ko waxee léegi te muy taxawaay yu yàgg yoo xam ne mos cee tàyyi mos cee yokkat ñoo ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal di ñaan ñu yàgg ànd liggéey bi ci barkeb maam Cheikhul Khadim mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal sëriñ Afia nee na nag ñu ngi koy nuyu bu baax di ko yóbbante am nuyoo ci sëriñ Abdoulaye Dia di xaritam di wëllëram di mbokkam ñu bokk ak bëgg itam ci ak bëgg lu baax tax mu taamu ko ci eh, yu baax yu mel nii mu di ko jaarale ci moom sëriñ Abdoulaye nag ni nga ko waxee léegi rek eh, gis nañu ay taxawaayam ci réew mi waaye taxawaayam yëpp. bi ko sunu borom joxe xéewal gu toll ne gi ko jox ci wàllu wërsëg dafa delloowaat lépp ci boromam gis nañ ay yëngoom waaye yëngoom yi ñu gis yëpp ci alxuraan la jëm ci néegub yàlla ci yëpp jëfu yiw boo xam ne day dellu ci sunu borom subhanahu wa taala moo de ko def fu ne nag waaye mu mel ne suñ ko sañoon a wax dañuy wax ne mu beral loxo ëttub kër Cheikhul Xadim Euh, donte xëy na waxin woowu sax xaw naa nuru dara waaye gis dañoo gis ne dañuy wax ne maa ci raw ju ne day nuru ak ndof sax waaye nag teewul euh, ba léegi dañ koy jàppe rek nangu njekk nangu njekk njekk goo xam ne mi ngi koy jëf ci ëttub Cheikhul Khadim di ko jaarale itam ci fu bari fu ñuy gis waaye nag li nga waxoon léegi rek def lu baax moom fu ne la baaxe waaye nag fi ci kër Sëriñ Tuubaa moom dafay wóor ku ko teg ci loxob Sëriñ Tuubaa ci loxoy sunu borom nga ko teg te sunu borom moom du delloo jenn jëfi ja jaam jaam bu ko yaakaar ba jog jëm ci moom kon nag euh, jëf ji agsi na incha allahu danañ ko ko defal ci liggéey bi nañ ko daan defee démb ak barki démb ndax lii du yoonam mu njëkk naka jekk at mu jot liggéey bi def koy ànd ak ñun liggéey bi nag mi ngi yokk waaye moom it mi ngi yokk waaye mi ngi yokk itam loxoom nag kon nag ci yëg googu mu yëg ne liggéey bi mu ngi yokk mu ci yokk loxoom xanaa ci googu lañ koy sante cant gu bees waaye cant gi moom yàggoon na lool kon nag li ñuy def rek mooy di ko ñaanal suñu borom mi nga xam ne ku defal teraanga nga am teraanga ku mu defal sutura nga am sutura ku yokk say xéewal say xéewal baawaan dal na ko suñu borom nangul te yokk ay xéewalam te dool li wërsëgam ci barke Cheikhul Khadim yéen ñi nga xam ne Serigne Bassirou mi nga xam ne itam moom lay jaarale mbir mi ci loxoom te moom it mu am taxawaay boppam boo xam ne donte taxawaayal na tey jii Serigne Abdoulaye Ndiaye seen mi taxaw taxawaay boppam te ñi ngi séentu ne mi ngi tax dana ko taxaw incha allahu te wax na ko itam ne dana ko taxaw incha allah ñu ñaan suñu borom moom itam sun borom fay ko ci jot li gii jot li yiw wi waaye fay ko yiw boppam moom itam yéen ñi nga xam ne suñu borom dogal na bi Serigne mbas amee ak tab ja itam mu doy loo loon ci yaakaar leen ci ba yëkkati ko tekk seen loxo ngeen doxe ko doxin wu mat bi tam wax fi kàddu yu am solo yi sun borom fay leen ci yéen itam lu toll ni jëf jii ndax sun borom kat noonu lay jëfee mën na leen a fay lu toll ni jëf jii te du wàññi ci jëfi borom dara kenn ku nekk ci yenn kon yàlla na ko sun borom defal pay googu te ñu teewaat ko ni ngeen di déwén kenn baña a te weer wi ñuy dugg ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim woor ko ci wér ak kattan ak xéewal yi ñu ko mën a euh, mottalee ba mu jeex ci alhamdulillah rabbil alamin teewaat ko ay déwén yu bari wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.